ci nekk soo sañoon soo liggéey ba wàcc dem sumbi sa tënu dem ndogoo ak sa njaboot mais soo bàyyee sa njaboot ñëw fii ànd ak say collègues ànd ak ñi nga xamante ñii yéen a ngi liggéey ñii 10 ans ñii 20 ans ñii 30 ans ñii quelques weer c'est parce que wane ngeen ni ñoo bokk te loolu dafa am solo euh, su fii benn nit ñëwoon rek man kontaan naa mais su ma gisee kilifa yi ñëw chef d'équipe yi ñëw. comprendre naa que ñëpp mënuñ ñëwandoo parce que am na ñoo xamante ni dañuy dem seen famille soog a ñëwaat xam naa ni tamit ku ñëwul sa xel mu ngi fi sa xol mu ngi fi di leen wax ni nag famille lañu su ngeen gisee ñu def lii c'est parce que dañ leen bëgg gën a ñemeloo euh, conseil municipal bi bëgg leen gën a ñemeloo euh, la direction général le secrétariat général ak seen directeur technique yi parce que su ngeen gisee liggéey bi ñun ñoo ko bokk li may wax rek ñu dañ ñu dénk pour juróomi at mais yéen ñi ñu ngi fi ñuy vingt ans ñi 30 ans ñii yàlla na fi yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam parce que yéen maire bu ñëw tamit wax dëgg yàlla fii la leen di bàyyi su jàmm di am. Euh, di wax ni nag liggéey bi monsieur le maire yaakaaru ci kenn ku dul agent municipaux yi loolu yàgg na ko wax loolu nag laa leen bëgg firndeel moo tax ma woote jotaay bi ñu waxtaan di leen wax ne nag liggéey bi kenn mënu ko équipe ñoo koy mën kii day mën def lii kii mën def lii kii mën def lële kii jàpp fii kii jàpp fii kii jàpp fële. loo yaakaar ni am nga ci xam-xam wala nga am ci xalaat wala sa doole mën na ko proposé bul xaar ni woo la loo gis keneen muy def te nga mën ko ci jàppale ñëwal nga def ko loo gis monsieur le maire di def nga ñëw nga jàppale ko ci man damay kontaan tey suñu commencé yenn programme am ku nañu ah nañu moytu lii wala ko ñu ñii lañ ko doon defee wala nañ ci yokk lii fierté la ça veut dire que kii gëm na projet bi keroog ñu ngi am bi ñuy liggéey bâtiment bi madame Diop dana ma ah ñu ngi koy lancé waaye yëguma ci laa ne kon gëm na projet bi keroog bi ñuy def affaire éclairage Dieng woo ma ne ma ah nañu sóoraale dagg garab yi xam nga wane ni kii tamit am na ci expérience ak yeneen ak yeneen ak yeneen Saliou euh, Cheikh keroog bi ñuy def plomberie bi mu ne ma dinañ def lii balaa ñuy jàllal pavage yi loolu ça veut dire que équipe bi xam nañu liggéey bi te bëgg nañ ko mais nag nañ leen ci boole boole boobu nag moo tax ma woo leen tey di leen wax ni vraiment projet bi seen projet la ngeen jël les choses en main parce que liggéey mairie li ci ëpp solo li ci li ñuy gis bokk mooy la direction technique mooy nettoiement mooy euh, plomberie mooy menuisier bi mooy mécanicien bi mooy euh, voirie mooy lépp lu tout le reste nag c'est administratif mën nañ ni kon liggéeyu mairie yéen la. Euh, di leen wax ni rek agent voyer fan yii yëpp mu ngi ñëw di waxtaan ak ñun doon am ay yi nga xam ne daf ñu ko doon fàttali. muy seen savon yéeg seen huile yeeg lépp mu ñu koy fàttali wax dëgg yàlla ak nee <laughs> naa heure yi léegi nag andil nañu demande bi waxtaan naa ci ak Souleymane moom it dressel nel na ma lan moo fi doon nekk comme li may wax rek kuy soog a ñëw yow yaa koy fàttali naan ko lii dañ ko doon def du loon loo xam ne bugg ko def de mais peut-être ñëwul ci xelam wala xamul mais yow mi fi nekk yaa koy fàttali ne ko ah monsieur le maire lii dañ ko doon am. lii dañ ko doon def wax dëgg yàlla taxaw na ci te je pense que fii ak fan yu néew loolu nañ ko débloqué teg ko de côté incha allah beneen bi tamit loolu sama proposition la ci cadre bi ñu nekk gën a encourager les équipes ñu commencer mettre en place yu du mois maanaam weer bu nekk ñu jël benn employé du maanaam koo xam ne moo dàq liggéey ñeneen ñi de mais ñu jël ci benn employé ni kii moo gën a fës ñëpp yéene ko ko ñëpp félicité ko loolu dinañ ko mettre en place à partir du mois de euh, mois de mai bi ñuy dugg incha allah loolu nag dama ci woolee responsable agent voyer ak responsable service bu nekk ñu toog ñu xalaatee ban canevas lañ koy def comme ça suñ ci eggee mu doon loo xamante ne ñëpp dañ ciy gis seen bopp. loolu day gën a dooleel équipe yi day gën a andi cohésion yi ba pare tamit ay waxtaan ak ay ndaje nañ koy def à chaque fois. beneen bi tamit li may bëgg mooy comme famille lañu parce que toll nañ foo xamante ne war nañ mën a demalante ay xew ku xewle na ko sa morom yëg na ko keneen yëg amul kii mooy monsieur le maire amul kii mooy lii na ko sa moroom yëg ku mën a dem nga dem ku mënul dem nga yónnee wala nga yable dañ leen wax à partir de maintenant moom vraiment famille la amul benn barrière amul benn limite nañ yaatal xol yi. maire lu mu wax lu yomb la nañu liggéey jëriñoo loolu mooy leneen nekkul objectif loolu loolu lu développé Kaolack suñ ci jàppee ñun ñëpp Kaolack dina développé ndax ñun Kaolack moo ñu ñor Kaolack lañ am Kaolack lañ juddoo li nekk Amérique mun na nekk Kaolack suñ ci jàppee ànd ak monsieur le maire ndax am na vision dem na fu nekk xam na lu nekk daje naa ku nekk du politicien travailleur la xool leen fii ñu taxaw tey muy cœur de ville am na nu meloon ñun ñëpp xam nañ ne am na nu meloon xoolal tey ni mu ko transformé xool leen chambre de commerce ni mu ko transformé xam nañ li fa nekkoon loolu la bëgg a def Kaolack nag développer mairie bi ñun ñëpp ñu jàpp ci ñu ci jàppee dina avancé Kaolack dina avancé. tey boo ko seet monsieur le maire côté boo tëbb si mairie ñu ngi fi boo ne électricité ñu ngi fi boo ne garage ñu ngi fi boo ne affaire mbalit bi ñu ngi fi boo lu koy firndeel mooy démb lii mooy wanal nag dañoo bokk tey ndey bokk bàyyi. te ñaani tur yàlla dara daal koy dindi parce que ku luy firndeel mooy barki démb waaw marché bu ndaw dañoo def réunion ne dootuñu fay juuti ndax man foofu laa dëkkee ñu ooma si réunion ba ma jël mbalit mi yëpp envoyé ko madame Diop ma ne ko lii moo tax marché bu ndaw ñu ko liggéey si deux heures temps jox ma équipe bi ak oto ñu liggéey ko si deux heures temps noonu lañ ko defee démb ñoom ñoo mujjee oote di wax ne félicitation ma ne ko bala ma félicité félicité leen madame Diop ak ñu ñu lii la moo lii fenn fu te incha allah lii ko monsieur le maire waxee équipe bi fi nekk muy employé municipal bi bokk nañ ndey bokk bàyyi te incha allah danañ yaatu danañ yaatale lépp li nga xam ne moom moo moom lañ ko jox pour mu liggéey Kaolack fas dañoo fas yéene ànd ak moom ba mu am ndax ndax ndamam moo suñu ndam ndamam moo suñu ndami njaboot ndax ñun amuñu dara lu ñuy tiituroo lu dul Kaolack Kaolack dongo lañ am kon nag monsieur le maire bu ñëwee tey li nga xam ne moom moo koy gën a firndeel monsieur loo xam ne man 84 laa ñëw 83 laa ñëw mairie jàng fi métier ba le 26 janvier 94 ñu amoo sama boobaa léegi maa ngi yi maire bu ba maire yu bari fekk na ma fi waaye wax dëgg yàlla monsieur le maire Serigne Boum def na fi loo xam ne gisuma benn maire bu ko fi defagum vraiment gisuguma ko fi ndax joxe ay dàll joxe ay dàll mu ngi fi soog a am joxe tenue yu mel nii ñu ngi ko fi soog gis joxe casque mu ngi fi soog am kon vraiment ñu ngi koy félicité moo xam lu mu bëgg ko yàlla defal vraiment kontaan nañ monsieur le maire. ànd ko raaw ba si nekk tey jëkkati joxe nañ suñu loxo ñu bokk ndey bokk bàyyi fi ngeen jublu ñu jublu fa ànd ak yéen lépp lu ngeen xam ne daal nar leen a jàq ci terrain bu ngeen ñu ko yoxe ñu def ko di gërëm Dieng di ngeen wax si Dieng moo nekk si moom Dieng ba mu ñëw ba léegi dafa yaatu dafa ubbeeku Dieng noonu la mel Dieng man fu mu romb fu mu romb sa liggéey kenn koy nuyu moom noonu la yaatoo kon noonu yàlla na ko yàlla yaatal vraiment suñu collègue de service yi taxaw daal ñu ngi leen ñaanal gudd fan loolu bu ànd wér di wax ne daal mandat Serigne Mboup bi yàlla bu si kenn manqué yal nañu fekkee lépp ba fekkee deuxième mandat bu koy wàkkalu du joxaat ñu ñëpp ñu fekkee ko yal na ko yàlla dogal vraiment daal félicitation Moussa le maire deux mandats ñun dañoo xeeb sa deux mandats yi nga xam ne moom la ma def na maire wax ñu dañ koo bëgg a wax chaque mandat mu am ko fi ndax mu liggéeyal ñu Kaolack nañu jàppee ni rek ni on doit travailler en équipe travailler en synergie pour lan le bien de Kaolack parce que ak lu ci munti am Kaolack moo ciy bénéficier wu Kaolack moo ciy bénéficié wu ñun ñëpp ay doomu Kaolack lañ mam si yaakaar naa yow ba ñuy yàgg ànd yàgg na ñambe ñee ñoom góor a ñoom ci vraiment képp koo xam nag am naa ceeg yow accrochage wala tiraillement nañu xam ne liggéey bi moo ko laaj te ñu ngi ciy profité nag ci weeru koor bi di baal àq tey baalu ñëpp àq di wax ni nag fi nga xam ni fi lañ jëm vraiment entente moo ñu fi yóbbu ñun tëjuñ suñu ay téléphone tëjuñ suñu ay bunt yàlla def na ni l'équipe municipal le plus accessible foog naa équipe Serigne Mboup la donc ñu ngi ñaan nag continuité boobu vraiment mu dem ba law ba nga xam ni tey bés bu ñu fiy jógee dinañ fi bàyyi loo xam ni góor a dina ni man de foog bokkoon naa ci bi ñuy tabax lii